dimbale ñu si pour yi mun a taxaw koñ bi dafa bari ay ay boo xamante ne mun doo xam kii kan la wala kii kan la kono dañuy laajte sécurité foofu noonu tuuti waaw suñ ko amee sécurité peut-être dañ koy gan xam kan la parce que man ku génne bakkan dafa nee xamee waaw léegi na foofu noonu dañ jara toppatoo mbir bi ñu def ko surveillant man loolu laa ñaan gars yi def surveillance ngir yàlla ñu mun a xam kàlla parce que comme tamit xale bi li nga ko rendee gis nañ ko ñu dimbale ma si comme machine am na ku xamante ne laal na yaramam wala ku ko rendi ba tojuñu ko dama bëgg a eh, dimbale ma ngir yàlla defal ma ko enquête man loolu laa ñaan gaay métti ma loolu métti ma loolu ma xam ne na yàlla moom ma nattu ku def nii suma noon la et tamit dama ñaan mbokki jullit yi àdduna bi yëpp mu ñaanal ma yàlla yàlla may suma doom bi aljannatul firdaws waaw ah, mu ñaana ma tamit yàlla ku ko def nii yàlla yàlla weñ ko yàlla yàlla weñ ko li mu def nii lii moom dafa doy waaru diñu demee si armée kenn ñemewul jege ko man maa ñëw man suma doom la